ma lan lan waaw xam nga xam nga argument yi c'est c'est malheureux parce que comme li nga wax euh, amul benn association bu soutenir nag euh, SOMIVA hmm. euh, parce que ci ndendoor yi ñun ñolteen ujjaaji men la Euh, Amadou Wunaare ado la euh, ak euh, Bosia aussi bu nekk ci Orkadiéré ah, waaw ils son contre waaye nag problème bi c'est que complicité des maires des maires yi la mairie yi la ma mairie yi ak ak ñi fay ñi fay ñi fa liggéey malheureusement il y a des des des des gens du terroir yi nga xam ne dañu soutenir sous-préfet parce que peut-être sous soudoyé par une corruption quelconque en tout cas sous-préfet bi nag ñu ngi ko ciy tudd de sous-préfet projet bi euh, bu nekk Wuro Sidi wala bu nekk euh, kii Orkadiéré ñu ñoo ñoom amuñu euh, ay influence bu bëri waaye préfet bi préfet ci boppam. Mhm. ci Kanel. moom moo am influence moo ñoo ak maire yi. parce que acte boobu bi ñu bi ñu doon dénoncé. Mhm. acte de conciliation ak ak ak et de non recours boobu préfet bi ci boppam moo ko bindi est que kon su ma la déggee bu baax da nga bëgg a wax ni que autorité locale yi nekk foofu dañ leen seetaan. autorités locales yi euh, euh, justement euh, moyen maire yi. Ah. mais mais ñoom dañoo seetaan kay. parce que malheureusement loolu mooy suñu problème. parce que parce que au départ ñun dañoo foogoon nii. que normalement euh, euh, suñu autorités yi war nañu mun a euh, kii revendiquer suñu ay droits pour ñu ñu mun a jëfandikoo ci ci ci suñu ay communes yi di di di développer suñu ay communes. parce normalement. mais rien n'a rien n'a été tel que. en fait rien n'a été comme ça mooy c'est-à-dire que amuñu amuñu benn retombée bu bu ñëw bi nga xam ne lii. collectivité yi ñoo ko moom wala euh, li euh, euh, dafay dafay développer le contenu local au titre de continue local développer ay ay projet ay projet structurants yi nga xam ne des hommes et des femmes xam nga waaw ah, juste après ñu jàll ci beneen point maanaam yéen vous traitez avec qui est-ce que yéen da ngeen di traiter directement ak les les dirigeants de l'entreprise mhm. wala les autorités les autorités locales directement wala yéen parce que parce que tamit xeex mm, fekkee ne wax rek di di wax ci télé yeeg yooyu ñi nga xam ne war ngaa toog ak ñoom directement négocier ak ñoom jéem trouver ay solution soo ko defu gëm naa ne sa da nga yàgg xeex rek waaye li ngay xeex moom. si si si si si euh, ñun ñun en tant que association. Euh, euh, waaw dañu wax ak ñëpp normalement ak société bi jël nañu ay rendez-vous yenn saa yi ki kii directeurs yi ñooy ñooy dul recevoir. Euh, waaye ñu on trouve d'autres moyens aussi euh, par exemple par la presse par la boîte de presse pour euh, interpeller leen mais à chaque fois on demande aussi des des urgences et on est dañoo comment dire ouvert pour ñu mun a discuter pour pour ñu mun a négocier toog ci table bi mais loolu loolu la waral nag bi ministre bi ñëwee ñun on était là ak ak directeurs yi ak yëpp mais à toutes les occasions dañu leen wax dañ leen bindi donc euh, on est on est bien organisé ñu ñu ñu ñuy wax ak suñu suñu maire yi tamit mais maire yi bon surtout oreille la bon euh, donc euh, su su suñu suñu suñu kii woon nekkoon équipe ak ñun ak population yi. tamit lii yëpp du du du. du am du jot a am. d'accord.